Dajjal veut administrer la terre euh, avec ses propres règles, avec des règles différentes, contradictoires avec le système de Dieu. Et ce c'est ce système maçonnique. C'est un système maçonnique bien mais aujourd'hui, lobby góor jigéen yi bu tax di nga bu am solo la al munafiqun wal min ba'dhum min baadin ñom ñom dañoo andando dañoo andando manam aujourd'hui le lobby franc-maçonnique international le lobby LGBT dans le monde les satanistes les lucifériens les yéhouts, euh, les athées d'accord avec l'islam euh, l'environnement le milieu de l'usure la la la finance la haute finance internationale l'industrie du jeu et du sexe l'industrie industrie jeu et industrie sexe, ñi ngi may wax islam arrangé ils ont un ennemi commun l'islam. ennemi lañ mooy islam ensemble dañoo bëgg dam bëgg damm lislaam nag waaw Pape Oumy Pape Oumy yaa ngi egsi nag ci euh, le cœur la chose al mahdi ndax on peut parler de Insa parce que waxee mahdi il faut ñu waxaale Insa dajaal moom lu leer la moom laa wax léegi sur ces trois états mais Insa ak mahdi tamit euh, kazalika amet Insa jazakumullah xeran euh, dafa am jikko bi xam ne jikko yëwut ci alxuraan jikko ku ko am yëwut nga donc yow yaay yahut suñu wax yahut dëgg yaa ngi ci biir yahut yi yaa ko xamul même bu dee yaa ngi junnaan allah kubar allah kubar yahut nga jikko boobu instant yi ñu ëpp fii si musulman ñu koy commencé ñu ngi soloo jikko yooyu te jikko yooyu ñun moomuñu ko ndax yéen sax newoon na man tashabbaha bi qawmin li fa huwa minhum képp kuy jéem a roy di toppandoo benn xeet man ci xeet boobu nga bokk lu mat a bàyyi xel la lu mat a bàyyi xel mais instant alayhi salaam parce que pour parler de Mahdi il faut régler l'équation SA. euh, bon euh, l'équation à est indépendante même l'espion et alors, il y a une ci informatique de doxal nous sommes la réalité des données ce que j'appelle le dataïsme donc la, le dataïsme aujourd'hui avec les, les, données, les méga données, l'utilisation qu'on fait des données, la production de données que nous sommes en train de faire, euh, mais vraiment, euh, nous sommes espionnés tous hein euh, whatsapp whatsapp telegram vous rien compris application boo leen bu a des applications plus sécurisées que d'autres certes oui mais personne n'est à l'abri dans sa vie privée à l'abri euh, je lui conseille bu téléphone bu application bu mail bu courant. bu mu am euh, bu mu jege sax ñu am téléphone parce que ñu am téléphone su ko jegee sax ba tey ñu ngi koy euh, sa sa caméra sa sa micro yëpp même soo taalul soo connecté wul il est actif donc euh, bu mu jegee kenn ko am téléphone ba pare na fexe nekk fi nga xam ne benn satellite du ko mën a gis donc ndax ñu ngi lay xool ci kaw asamaan donc ñu ngi lay xool ba sa biir kër mën la zoomer même signal daal di aaw même signal. tout ce qui est application applications ils ont été faites par des personnes et xam ne euh, am Donc, donc euh, qui ay données on l'utilise et on est dans un monde qui est hautement libéral on paye pour tout Le plus jéem a c'est gratuit télécharger c'est gratuit euh, c'est pas gratuit mooy li papi di wax rek yow il yow yaay yow yaay yow il client a da xamul donc, euh, mais voilà, on paye toujours, d'une manière ou d'une autre. On t'utilise, nous, nous, produits. Nous sommes des produits. Quand on dit que c'est gratuit, c'est parce que c'est toi le produit. De d'utiliser ça et donner de la jailles. On travaille sur toi. Donc, euh, vie privée, amatul. Moi, je suis ça l'espion. Nous sommes à Arouzamane, Diasasa là. L'OIDF, nous, nous, nous, nous, nous, nous euh, fa nekk loolu ko a xam ndax benn espion xam moo jox espion du am ay non non non euh, voilà euh, c'est le silicium c'est la terre donc c'est la terre c'est des matériaux aujourd'hui avec la connexion illimitée avec voilà donc am na solo wax solo donc su wax nga ne on peut pas traiter mun nañ ak daaba ak ce sont des systèmes qu'on comprend sont des systèmes qu'on comprend systèmes yoo xam ne qui sont incarnés par euh, voilà par des résonances qui sont là euh, dans le monde waaye waaye Insa Mahdi c'est des choses différentes parce que bi on parle même de personne on parle de personne on parle de kii dafa nar a qui kii moo koy lit. donc lii ça nous pousse vers, euh, vers d'autres types de réflexions. Un salut salam euh, Les matières halat avec les matières ham. Ni même quoi voir qui brûle Juste dire que Ensa, ça, nous devons boxer nous gommer. Le royaume nous voir au ciel. Lo c'est un autre monde bien, mais faut le Il faut le bailler damaa ñëw sax yeggal di may wax te xam su ma ko fi waxee wax dëgg yàlla mooy loolu donc euh, juste dire que rek li yàlla décrire yéen fasam li mu wax ci ay xadis yëpp ñu xam ko ci aaxiru zaman euh, dafa mel ni kuy seetlu xool war gis nous sommes déjà ci biir jamono boobu mbir yi ça sa commence à se finaliser mbir yooyu yëpp instant mu ngi commencé leer nous sommes en di waajal benn monde bi nga xam ne des na tuuti nit yi sax ñëwatul bëri monde de sécurité bi du sesam waxoon <coughs> dañ fay yegg ci aaxiru zaman que kenn du di dekk jamono bi xam ne kenn du sàccati kenn kenn du ñeme sàcc parce que da ngay sàcc daal sax loo li nga sàcc boole la ne la eh, yee may sàcc jamono boobu ñu ngi ciy waaj ñu ngi ciy yegg nii instant avec l' intelligence artificielle avec euh, les objets parlants avec euh, la mu sax avec euh, voilà ak la technologie saa fi mu toll wax dëgg yàlla euh, nekkul sàcc du yombati de fii ku sàcc moom wax dëgg yàlla ak les caméras ak set cette haute surveillance là qu'il y a dans les rues nga taxaw gaari sa oto si bett kenn ñëw jàpp ko sàcc ko de fekk caméra yaa ngi di ko gis donc euh, avec des touches tactiles oto bi doo ko mën sax taal sa baaraam nangam ak nangam ah, vraiment vraiment ñu ci yegg nañ ci instant yi sincèrement léegi boo xool loolu bu yegg nañ ci. donc il y' a beaucoup de choses yi nga xamné ne yonent bi waxoon nako té instant so xolé di nga xamni wax dëgg yalla yegg nañ ci donc on est dans un monde bi nga xamné wax dëgg euh dara important tul nit yëpp a ngi daw nit yëpp a ngi daw ñëpp a ci fitna euh, dañuy faat sax euh diiné mu ngi gëna a ranké ñu ngi egg si jamono bi nga xam diiné nombre bi ñoo ëpp instant nous sommes plus nombreux dans ce monde là ñu jullit yi fàttaliku leen yi nga xam ñoo conquérir le monde euh, ils étaient une poignée bu ndaw a ndaw mais une poignée bi nga des gens yu ont euh, des gens qui Mag, des gens yi xam quelle connexion qui ku des si Il puissance a ay nit la a nekk ay personnes ak ay cinq personnes di duma a armée yi milliers de personnes Perses, euh, Perse Byzance c'était puissance à l'époque yi l'empire islamique les musulmans ils ont ñoo Aujourd'hui, les conquérir aujourd'hui musulmans yi nekk la majorité de ce monde là nous sommes 1,8 milliard huit millions

même li yàlla waxoon yahudi te yahudi yi doxaluñu ko wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarjiun hatta iza futihat ya'juj wa ma'juj ay bi de wa hum min kulli hadabin yansirun donc way waaye ben wax ci rek wa haramun ala qaryatin ahlaknaha donc doy na donc ñun jul ci nag benn solution que la am il n'y en a pas deux il n'y en a pas trois il n'y en a pas quatre xam nga sooy xool alxuraan saa yu yàlla di wax leer ak lëndëm yàlla il met lëndëm au pluriel il parle toujours de zulumat il est toujours au pluriel waaye leer moom il le met au singulier ak nuur mina zulumaati en nuur

vers le vrai delluwaat ci sunna teguwaat ci alquran c'est que lii mooy l'unique solution bu am ñëpp ils ont appelé euh, ci biir lii leneen lépp nag ay ay ay njundux la ak ay ñal la waaye du yoon waaw wax ñal wala ay ñal la waaye du yoon donc aujourd'hui il euh, y a un modèle politique bu ñu islam jox dans un système de gouvernance bi xam qui euh, corrige sax les failles de cette fausse démocratie là parce que cette démocratie là arnaque la suñu arnaque y' a pas de démocratie nous sommes pris en otage par une petite communauté Li mom maa ngi ci waajal benn bind xam naa gars yi nag saa bëgg na bind trop wallaay sa war a damay bind rek nag bind laa bind rek laa nekk bind benn téere ma tuddee la fin des états la disparition des peuples donc euh, la boog des nations donc bi nga xam ne je fais une étude critique de ce de la crise de pouvoir ak fi ñu jëm ndax monde bi ñu jëm wax dëgg yàlla la gouvernance euh, la gouvernance dafa nar extraordinaire et déjà chaotique sax déjà donc euh, macha allah donc pour dire que rek yàlla jox nañu un modèle politique bu ñu war a doxalee bi nga xam ne moo gën a maandu te moo gën a jub te neexalul kenn te nekkul à l'avantage d'une communauté wala d'une fraction de communauté wala d'une d'une frange de la communauté au détriment des autres non il est juste daf ñu aussi justice muy benn yàlla jox ñu un modèle économique qui est juste qui est équitable qui est sain euh, qui n'est pas basé sur l'usure qui n'est pas basé sur le vol ndax dafa leen li xamé xamee lekkante la yàquluuna am wala naas bil baatili di di lek les biens des gens mais dans le faux dans le faux donc euh, yàlla daf ñu din daf ñu al batil bobu daf ñu tere riba ñu le vol

n'est-ce pas mooy la rue la ruelle donc lii la réalité politique économique sociale culturelle judiciaire euh, diplomatique euh, euh scientifique lépp mooy yon, bi yalla, ban yon, lañu lañu jox ndax ginaaw yoonam bi dafa am ñenn ñu taxaw ne noo yàlla maanduwul ñu ñoo gën a maandu yoonam bi baaxul dañ koy teg fële ànd si yoonu bopp waaw ñu gars yi ñoom Rousseau ñoom Diderot ñoom Montesquieu tous ces dites là ñoom Karl Marx ñoom ñii ñëpp ku nekk dafa am xalaatam ci naka ñu war a doxalee àdduna bi xalaatam la

ndax li nekk di xew ci àdduna bi yàlla il a son armée waajal na déjà ay ay soldats am dafa agrégé gul soldats yooyu rek pour opérer la révolution sous la bannière du Mahdi waaye mbir yaa ngi wàcc te mbir yaa ngi xeeñ partout mbir yaa ngi xeeñ damay joxe misaal bu ndaw rek xoolal fii si continent africain bi y a des choses inédites loolu boog des choses inédites euh, excusez-moi plutôt yoo xam mu ngi nekk di xew su ay bët ñu koy xool nous sommes là actuellement di gis ay chef d'état yi yoo xam ne leen jàpp leen tëj ay chef d'état yu ñuy atté ba ci mourtani bii tout proche chef d'état bi ñu ko accusé war ko atté donc il y a des condamnations yu commencé am ay chef d'état yi yoo xam ne leen jàpp li amul woon le pouvoir commence à changer maa ngi gis un euh, euh, docteur euh, Babacar Diop jàmbaar nag wax dëgg yàlla jàmbaar la góor kuy góorgóorlu la mais même gis muy wax benn wax bi je dama réer ma nekkoon kii peut-être comprendre la la gauche à comment rassembler la grande gauche mais les clivages dans le monde dans lequel nous sommes et fi ce ne sont plus des clivages gauche-droite les clivages gauche-droite ont disparu donc euh, ce n'est plus la réalité du moment aujourd'hui il y a, a, des courants mondialistes euh, qui sont dans les pays hein, mais qui voient mondialement qui sont dans les agendas euh, internationaux pour inscrire dans dans le supranationalisme bi nga xam ne moo nekk di daw instant di veulent résister c'est des patriotes qui veulent se soustraire euh, se défaire de cette de ce de ce de cette gouvernance mondialisée ou de ce supranationalisme organisé qui est une conséquence euh, de de de ce libéralisme fou ou de ce mondialisme bi nga xam ne kii euh, bon sionisme moo le mondialisme ben ben jeexital la ben ben bourgeois la si la le sionisme donc euh, lii Pierre Hillard dafa ci ay liggéey yu am solo sionisme et mondialisme di waree nous mu nu mu masha'allah. mais donc aujourd'hui dans le monde les femmes ils sont prêts à inscrire ce dëkk dans l'agenda international Ils ont wut partenaires ci biti organisations sont plus libres on va voler la souveraineté de tous les pays On va fuir la fuite la souveraineté vers le haut donc c'est des des organismes qui dirigent le monde en réalité organismes sont c'est des lobbies ñu sont ci représentants ce n'est ni démocratique ni transparent parce qu'ils ne sont pas élus ils n'ont aucun mandat des peuples c'est eux qui sont censés légiférer normer harmoniser euh, à travers des directives des, recommandations euh, des, des recommandations des règlements des décisions extra de quoi impacter de qui, de qui appliquer dans tous les domaines le domaine de la banque déjà domaine boulard avec la BIS la banque internationale euh, Bank of International Settlements la BRI la banque des règlements qui est la banque centrale des banques centrales ratio yi ngay dégg ay ratio Cook ak ratio McDonald tous ces ratio problème mu crédit ak monnaie banque banque yi mais c' est la BRI qui décide et la BRI elle est privée la BRI n'a aucun mandat des peuples ñu jox ñu ko mandat Ni moom BRI c' est des banques centrales banques centrales aussi, bëri elles sont privées je prends exemple de la FED la FED est privée et américains yi moomuñu ko elle est privée donc, il euh, y a beaucoup de banques centrales qui sont privées. Nous, nous, la C'est eux qui, font les règles, de quoi appliquer. C'est la même chose en matière de télécom. Il y a une internationale euh, IUT, euh, qui va légiférer et régler tout ce qui est télécom. Il y a l'IATA qui va gérer l'aviation. On va fragmenter tout, le petit Les qui qui qui qui qui qui la la souveraineté question la bu ñu interrogée dans ce 21e siècle là peut-être que nous avons ci ay waxtaan yu mais il n'est plus question de gauche de droite de milieu de centriste C'est vrai. dafa des partis politiques aujourd'hui il va y avoir un renouvellement des acteurs politiques autre que des partis politiques le le parti ça, n'est plus la la meilleure expression dans le 21e siècle d'une organisation politique euh, donc il y a peut-être débat qui est donc euh, mais machallah. mais gars il y mel ni ñu ngi

donc pour nous sauver dem dellu ji si yenn suñu débat sur un live yi rabbi donc sànq euh, nag li ma wax sànq euh, ci Qui jëmm yi ci sufiyanke en tout cas dans la tradition ça, égyptienne ancienne ils avaient vu qu'il y a des compartiments de lettres, il y avait une fragmentation de lettres. ils avaient identifié le jet ce qu'on appelle le jet identifié le K, le bas, le chut ils avaient identifié le ach le ab le sechem, le ren et le sach donc euh, c'est des identifications ils avaient une vision mystique et spirituelle de l'être donc l'ou euh, euh et cette même chose là était aussi chez les hindous donc les hindous avaient ce qu'on appelle l'anamaya kosha l'anamaya kosha la pranamaya Kosha, batay la Manonaya Kocha la vishnyana Maya kosha. liye ba c'est des partiment ni ils sont très en avance sur les pour comprendre doomu adamo ak adamo di ak euh, la constitution mystico-spirituelle donc euh, voilà euh, la Ananda Maya kocha ak ce qu'on appelle Atman Latman Latman moom ñuy dox ci wàllu ñu euh, les chakras ñoom xam nañ lan Atman donc pour dire que les peuples dans leur ensemble et fof lay revenir sur euh, si lu Mustafa, wax donc avec la ressemblance entre l'allégorie de la caverne de Platon et la soute kaf, euh, c'est différent ñaari mbiri ça dit des choses différentes l'allégorie de la caverne c'est une allégorie euh, bien euh, que la personne a expliqué pour expliquer comment a-t-on un rapport avec la réalité euh, le monde de la puissance et le monde des actes la réalité qu'est-ce que la réalité qu'est-ce que l'utopie que concevons-nous comme réalité qu'il était dans une démarche de recherche de la vérité l'allégorie est très bonne elle est excellente mais gaffe, ce c'est pas une allégorie CAF, il n'est pas question d'allégorie, c'est une réalité. il On a des, il y a des cavernes euh, voilà, où le temps, moi que Dajjal, le premier jour, un an, le deuxième jour, un mois, le troisième jour, une semaine, on doit le comprendre par rapport à ces cavernes. Tu sais, là, la caverne même, xalé yi ñoom euh, dañoo toog benn fan ci biir caverne bi équivalence su trois cent trois cent neuf ans ci biti caverne euh, n'était pas sur terre donc euh, elle n'était pas sur terre donc euh, Choli Moy, comprendre déjà moi réalité du tasawuf pratique mais caverne bi al la grotte et la caverne peut-être nañ ci gën a leeral incha prochain live su si si il y temps un gën donc mais nous jàpp rek les mêmes histoires concernant des prophètes les mêmes histoires sont ont été redites par tout le monde ça ne suffit pas qu'il y a eu des plagiats parce que nous avons dit éditions on a plagié euh, le judaïsme le christianisme par rapport à des histoires surtout par rapport à asxaabu Kaf euh, ce qui est totalement faux. Il n'y a eu pas eu de plagiat, il y a eu des prophètes qui sont descendus et qui émanent d'un seul créateur. Donc, euh, un seul créateur. Donc, effectivement, c'est très normal euh, que de ni dire la même chose. Donc, il euh, n'y a pas de plagiat. loolu moom sama réponse mais defar temps dina génn d'ici peu bu Edouard Galez. responsable par rapport ak le prophète et eh, le messie naa ko publier sama page inshallah donc wax deug yalla yalla inshallah defal yu defal ci tawfiix dafa melni ni nak yag na trop ci asan do baye ma ngi lay ziar bax baax a baax waaw loolu def benen waxtan da instant mom moom donc macha allah et waa Ali Bokum non non il faut pas dire vous ñun il faut nous tutoyer nous ne sommes pas ay tubaab donc. Eh, waaw Modou Diagne waaw tu as entièrement raison waaw góor yàlla yi ñu ngi génn ñu ngi jàng li nga xam ne euh, ku toog ci zahir da toogoon fii dix ans pour jàng ko gars yi ñu ngi génn ci ay espaces yoo xam ne en un jour équivalence dix ans la fii ñu jàng foofu jàng yu am solo wala boog ñu dem foofu jaamu yàlla jàmm yàlla yu am solo ñaar toog fii di xool gars yi donc ngay xool waa ji naan kii fan la jàngee li mu xam te fekk mu ngi génn te ko di jamu yalla jamu yalla bi am solo parce que moy mooy la sens en réalité moy meuna egg ci eh, sa digënté ak sa borom gën ko meuna ñongal gën ko sellal gën ko rataxal té gën ko rafetal di moy le sens le li moy le but ultime d'une quête spirituelle quel que soit nak fu nit meuna mën a jaar maanaam yoon bu mu mënti yoon bi c'est vraiment ce n'est pas important yoon bi c'est juste ben ben outil la yoon bi amul solo fu mu wara jëm fi mu yegg fofu am solo donc euh, fofu am solo mais macha allah.